ñetteelu bërëb boo xamante ni lislaam ñëpp ñu koy naqarlu mu tege ci loo xamante ni jaay doole rek la ah, ak tamit dégg def loo xamante ni génn na ci doomu aadama waru koo def morom moom doomu aadama kon ñun ñëpp rek ñu ñaan suñu boroom xew-xew ba fa am mu tuur ci ndox seral ko ba jàmm rek egsiwaat fa yéen mbokk jullit yi di mbokk gë uh, gëm ñi di mbokki taalibe yi ginnaaw bi nuyoo nuyoo tamit nuyoo ma ak nuyoo tamit jox leen seen daraja ah ñu ngi taxaw ak yéen taxawaay boo xamante ni taxawaayu seetantal la ak gëstu ak xalaat ci xew-xew boo xamante ni am na te siiw lool ci senegal gépp tamit mu doon jàngoro joo xamante ni tamit day rogalaat ci siddiitu bépp famille ci amut benn cité kon benn ah, famille rek mucc ci mu doon loo xamante tamit luy xupp tamit ak nekku famille yi doon loo xamante tamit luy alag la tamit am seenug nekk seenug am doon tamit loo xamante ni luy teqale tamit benn benn famille la yéen mbokku jullit yi kep ci ñun tamit dana dégg ci dina dégg ci li nga xamanteni moy média yi wala sax mu jàkkaarloog mom suba ngoon muy jàkkaarloog mom famille famille yi li nga xamanteni ci am ci ay jammat ak nga yo yo xamanteni tamit dina faral di bari ci eh, famille yi lool tamit ak tamit fañ fañante goo xamante tamit dina am ci digënté way dencante ñi ño xamanteni ñi ngi dencante waye nak seen digënté tamit mi ngi bari ay jafé jafé lool ah loolu kon ah ci eh, jafe-jafe yooyu sax dina egg ci yenn jamono yu sax fase day am wala sax ñu tàqali ko kon loolu tamit ñu gën koo bàyyi xel lool lool lool te la ci gën a jommale te gën caa wex ci mbir moomu tamit ñi nga xamante ni ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam si leen si la màcc tamit duñ ci joxe xam-xam bu leer ci sabab yooyu lu ko waral wala ñu firi ko firin boo xamante ni faru firi mu leer la kon loolu lu jafe la ci ñoom loo xamante ni ñaare pour ñu am ci solution boo xamante ni danañ ca tëppoo loola lu jafe-jafe la yéen mbokk jullit yi ndax jotut kon ñi nga xamante ni ñooy borom xel yi te borom gis-gis yi ak ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñoo méngoo suñuy mbir ak képp koo xamante ni am na xol bu sell ñu taxaw taxaw boo xamante ni taxaw bu leer la ngir am solution boo xamante ni jafe-jafe yooyu dinañ ko mën a saafara ba du amati déedéet kon amut lu dul ndëkk danoo dell ci li nga xamante ni mooy jàngaleem lislaam njàngale moo lislaam moo xamante ni njàngale mu wér la ak tamit gëstu li nga xamante ni mooy taarixu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tamit gëstu nan la daan dundee ci këram ak i njabootam kon loolu buñ ko gëstoo xool ko bu baax a baax dina mën a am solution boo xamante ni jafé jafe yi nga xamanteni dina am ci kër yi ci digënté soxna yi ak ci njaboot gi bu ko défé buñ ko jàngatee dé ko boba kon dinañ mëna eh, am solution bo xamanteni solution bo xamanteni ni dinañu mëna régler lool lépp la. ak tamit di yar suñu suñu doom tamit yarub l'islam bu wër tamit kon tamit war na ci ñu ñëpp tamit ñu yar sunu suñu doom yarub l'islam yarub wër wér ak tamit. di leen soññ bu baax a baax tamit di leen fàttali ah, suñ maam ya ak nan lan daan dundee la ca gën ñu fàttali leen ko di leen teg ci yoon yooyu loolu tamit ak tamit résultats yi nga xamante ni suñ maam yi amoon nañ ko tamit ci njaboot ak yar ba tamit loolu tamit ñu koy fàttalee suñ njaboot yi loolu tamit dina doon solution boo xamante ni dina tax jafe-jafe yi nga xamante am na ci kër yi ci wàllu ñi nga xamante ni ñooy way dencante ji ak ñi nga xamante ni ñooy njaboot gi ci nekkaat ci biir kër gi boobaa bu delloo foofu kon dinañ am euh, solution bu am solo ak tamit ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa tamit teg li nga xamante ni mooy ay daan daan yoo xamante ni tamit képp koo xamante ni def nga yu mel noonu ah ñu am daan yoon la teg waaye daan ya tamit na doon loo xamante ni tamit nan sàmmanteeg tamit ku nekk maslaa ba war a am ci yow mu ku nekk ak euh, euh, sa intérêt tamit ñu xool ko bu baax a baax ba kenn du gaañ kenn tamit bu ko defee tamit ñu xool ko bu baax a baax ndax mbirum famille mooy mbirum àdduna ah, mooy tabax doomu aadama ci ñaar góor ak jigéen lay jógee ba famille taxawu peuple taxawu kon luñ ci tax luñ ciy àtte rek di ko xool tamit ku nekk tamit muy góor ak jigéen ki tamit ñu xool li nga xamante ni mooy yëwanal say mbir ak moytu ko tamit dara lépp loo xam ne lor la lor la tamit ñu moytu na ko leen di koo teg nga xam ni il faut rek ñu mu doon saytu boo xamante ni saytu bu bu mat a mat mat la saytu boo xamante ni waa bu mat sëkk lay doon ndax fase doon na loo xamante ni yenn ci jamono yi mooy doon li ndax day doon loo xam ne boobaa bu bu eggee fenn fi te amut tamit boobaa la muy yàq day ëpp waaye nag Ah, li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ab xadul xalaali ilallaahi at talaax kon li nga xamante ni moom la suñ borom daganal te gën koo bañ kon mooy fase ah suñ borom tamit dellu waxaat ni fi bi maxruufin aw tas tasrihun bi insaanin kon ñu jàpp ci bu jafe-jafe amee tamit bu jafe-jafe amut wala bu amé tamit ñu japp ci li nga xamanteni moy ñek bu ñu ba nga xamanteni ni jafe-jafe am na ba nga xamanteni solution amut nak boba li nga xamanteni moy fassé ah, do do ko am kon bu ko défé tamit ñu ñaan tamit sey yépp rek ah, suñ borom ku nekk kam la booleel suñ borom def ci jamm def ci ndox mu sedd def ci njibot ku barkel ñu amagu tamit borom may leen te ñu gëna yaraat jikko yu bu baaxa baaxa ndax limi am ci jamono ji bari na lool kon alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh